après, il y eu en fait la loi René Goblet, 1886. Pourquoi faire Pour maintenant le personnel sax dootul doon ay labbe personnel bi ay laïc la ñu doon c'était la loi de 1886 la loi Goblet. c'est pourquoi 13 <coughs> ans après bi ñu defee ay ay ay ay jàngat en 1899 ils ont vu que ni il ne restait que mille religieux sur toute l'étendue de la France yuy jàngale alors qu'ils étaient plus de 100 000. gis nga tendance bi ñu tàmbalee euh, euh, renversé woo alors looloo tax bi ñëwee avec la loi de séparation en 1905 mais facilement facilement la loi c'est vrai que am parce que y a eu 48 séances à l'Assemblée nationale mais la loi est passée ñu ne léegi yàlla jox nañ la carton rouge demal toog fële maintenant dañuy éclater yëf yi séparer maintenant l'église ou bien les les églises ak euh, ak ak la sphère publique alors c'est ce la ñu reproduire fi mu ne au Sénégal ñun bi ñu dem ñu fi bàyyi nga xam ni euh, Sénégal boo doon xool par bu ma ko doon hiérarchiser dama naan Sénégal franc-maçon yi moom ñoo ko moom. damay faral di dégg léeg-léeg yenn gars yi naan mii réew Bamba ko moom xaw ma ñi ne Maodo Malick ko moom waaye Bamba mu amu fi dara Maodo Malick amu fi dara réew mii franc-maçon yee ko moom. c'est une république maçonnique constitution bi ay maçon ko bind. les institutions là à l'image en fait de ces gens li ñu programmé woon la ñuy doxal ba tey li fiy dox lépp c'est maçonnique tout emblème yi amul dara lu ci génn c'est maçonnique ñi des nag dañ leen di bës akaraay nii rek naan la waaw yaa fi nekk parce que xam na ni wax ji doy na leen ko mbir yi affaire bi yaa ko yor nga ni wéy man maa ko yor ñu dem ci keneen ni la affaire bi yaa ko yor nga ni maa ko yor alors loolu man je pense que <coughs> malheureusement loolu moo ñu moo ñu moo ñu gàllankoor ba tey maintenant noonu la demee nag léegi dafa jot Sénégal je pense que loolu mooy jubluwaayu téere bi loolu mooy jubluwaayu it moo war a doon taxawaayu bépp sénégalais ci nag réew mii ñu moomal ko suñu bopp parce que dañuy wax ni en fait les normes euh, juridiques man des normes sociales boo demee États-Unis ñoom la ñu xam ca la ñuy sukkandiku tëral seen yoon boo demee Angleterre la même chose boo demee Australie la même chose mais ci anciennes colonies françaises yi rek ngay dikk ñoom dañuy déglu ba France xiin pour ñoom ñu mën a tawlu quoi nga xam ne il faut France xiin pour ñoom ñu mën a tawlu amuñu xalaat amuñu gis-gis amuñu am-am amuñu man-man te loolu bokk na ci li nga xam ni moom la ñu dex noonu la ñu tabaxee euh, <coughs> ça se comprend ça se comprend nag aisément l'école française bi ñu koy tabax euh, c'est vrai que euh, Jean Dard bi ñu koy indi en. Euh, au dix au dix-neuvième siècle waxuma ko sax mais bi ñuy bëgg implanter l'école française dëgg-dëgg yaa a eu quelqu'un benn français bu ñu fi dépêché woon ñu koy wax euh, Georges Hardy ñu bari xam nañ ko bi na benn euh, ouvrage bu am solo une conquête morale je pense que sénégalais yëpp war nañ ko liir il fut le premier inspecteur de l'enseignement en Afrique occidentale française dafa wax deux choses <coughs> peut-être trois sax yoo xam ne dinaa ko fàttali rapidement dafa ni il y a des notions à détruire dans l'esprit de l'enfant bi ñu ko yebalee quoi mu xool société bi ba xam nan la war a def pour renverser la tendance pour maintenant non pas ñu note leen ci doole mais ñu note leen ci xel ak xam-xam ak stratégie mu ni il y a des notions à détruire dans l'esprit de l'enfant des notions singulièrement solides qui lui viennent du milieu familial et religieux nee na am na daal ay mbir yuy nekk ci ñoom ñu koy gëm dañ ko war a dindi te yooyu dafay sori ci ñoom mais mi ngi leen di jóge ci seen ngëm-ngëm diine ak ci seen aada kon xam na li muy def moom lan la la première chose à faire loolu la ñu dagg ñu ak suñu démb gëmloo ñu ni ñun xamuñu lu baax amuñu lu baax te mënuñoo jëmmal lu baax alors pour nga mën lu baax xam ko mën koo jëmmal il faut nga dellu ci France ci lim la nàmpaloon nga mën koo gëqat c'est ça notre problème fondamentalement da nga gis ku ñu wax boroom xam-xam la boo waxul français fi mu ne du xam-xam mais loolu problème la alors la deuxième chose mu ni bu ñu defee loolu ba pare dagg leen ak seen démb li ñuy defaat mooy euh, pour transformer les peuples primitifs de nos colonies pour les rendre le plus possible dévoués à notre cause et utiles à nos entreprises dégg nga <laughs> dévoués à notre cause et utiles à nos entreprises nous n'avons à notre disposition qu'un nombre très limité de moyens Et le moyen le plus sûr, c'est de prendre l'indigène dès l'enfance, d'obtenir de lui qu'il nous fréquente assidûment et qu'il subisse nos habitudes intellectuelles et morales pendant plusieurs années de suite. En un mot, de lui ouvrir des écoles où son esprit se forme à nos intentions. loolu ça se passe de commentaire nee na bi ñu leen daggee seen dem ba pare léegi nañ leen jël teg leen ci suñu ron xemmem leelu suñu bopp suñ bëggee am su ay ay ay bayfal entre guillemets suñ bëggee am ñoo xam ne si ils ne vont même plus réfléchir maanaam li ñu leen wax rek la réciter comme a dit Rousseau comme a dit comme a dit comme a dit comme nga xam ne yow tu n'as pas booy réfléchir sax amatoo comme il rek alors ki ci gën a xarañ nag mooy ki nga xam ne mën naa waxaat ni comme il a dit cest mooy suñu xam-xam ñun comme a dit un tel comme il l'a comme nangam yooyu daal ci ngay nekk alors mu ni suñ bëggee am nag nit ñoo xam ne dañ ñuy gëm bëgguñu waaye ñoo xam ne dañuy doon suñuy mbaam sëf amal ñu njariñ ci suñu tool et utile à nos entreprises nous disposition qu'un nombre très limité de moyens nee jumtukaay yi nu yor ci suñu yoxo bariwul suñuy yoxo suñu loxo mooy benn suñuy yoxo booy wax yoxo ñaar lay doon quoi jumtukaay yi ñu yor ci suñuy yoxo bariwul waaye bi ci gën a wér mooy ku ci juddooti nañ ko teg ci suñu wet mu nuy xool ni ñuy tooge ni ñuy waxe ni ñuy jëflante ni ñuy xaymaa mbir ni ñuy seetloo ak natte ak ni ñuy doxalee su ko defee loolu lay xemmem wut si ci loolu nag ngir mën a doxal ay mbir de ce point de vie rek ci ngay gisee ni kon ñun amaguñ une république sénégalaise parce que li fi nekk lépp ñun foofu la ñu bàyyi ko ba tax na dafa am ku am maanaa lu mu waxoon loo xam ni moom lay tëje sama intervention muy Cheikh Abdoul Ahad Mbacké dafa waxoon ni nee na boo naar naar law ba jàpp ni tey moom am naar fini nga boo yàggee ci moom ab ab ab proñ la lay jàppe c'est la c'est la vérité nee na boo tubaab tubaabloo nag ba jàpp ni yow tubaab ni nga boo yeggee mu jàppee la bu kormet boo naar naar loo ba yegg ci naar bi ab puruñ la lay jàppe waaye boo tubaab tubaabloo ba jàpp ni tubaab nga tey mu jàppee la ab gormet léegi te ñoo li yàlla dogal ci ñun ñun ñoo xam ko te téye ko te loolu mooy lii njëkk avant ñu wax waxi moom suñu penc mi ak suñu dëkk bi nit ku xamul boppam maanaam mënta taxawal dara te du taxawal dara ci dundam day wéyangi ngi di taxawaalu ba ak dem dikk mu dee rek jóge fi il aura existé véritablement te du fi bàyyi dara donc ba tax na loolu yaakaar naa ne lu am solo la ci ñu delsi ci xam suñu bopp xam ne ñun yàlla fàttewuñu ñun yàlla doyadaluñu ñun am nañu démb boo xam ne bu am solo la mais dañoo bëgg a gëmloo ñu ni loolu amul solo ba tax na fi mu nekk nii pour ñu mën a jëmmal dara sax faw nga ni na ko tubaab ba waxee wala na ko naar ba waxee alors que yëf yi du loolu yëf yi dépassé na loolu li yàlla defal ñëpp defal nañu ko sinon plus kon loolu nañ ko xam te téye ko te it lii ñu maase bokk bis nit ki tey jii au moins ñu tàmbali ci xam ni ñun ñoo ko war moomal suñu bopp Sénégal pour sénégalais la mais Sénégal warut doon pour France warut doon pour leneen aussi wasalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu.